nee na loolu ëpp na fukk at ak lu ko topp ci daara ji. nee na kon ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax ci jëf ji. nee na di sant waa koñ biin bu baax a baax a baax. waa daara jeeg maam yeeg ñëpp rek macha allah. nee na jëf ji nag rëy na lool. waaye day dugg ci biir liggéeyu sëñ Touba rek. bi mu ko defee ba noppi. jébbal na ko ki fi nekkal sëñ Touba muy mu Mountakha muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko barke alxuraan kon nag dugg na ci biir liggéeyu sëñ bi nee na moom nag noppi na ci kon nee na li ci des nag mooy ñi ko war a dundal mooy jullit yi dëkk ci koñ bi xam ni kiy dundal jàkka mooy kiy gëm yàlla gëm bis penc te jullik mbooloo gënee na jullik kenn ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar te jéego boo jéggi jëm ci jàkka ji dana yëkkati say daraja far say ñaawteef kon julli ci jàkka lu am solo la sëriñ Afia Mbàkke sëriñ Fàllu Mbàkke koñ bi yépp ah, ñu ngi leen di dénkaat barab bi bu baax a baax. ngeen gën a sax ci dundal ko bu baax a baax. gis nañ ñi ngeen ci saxee ci dundal ci weer wi ci anam yëpp nag. ci waxtaan yi fi doon amak ak. njàng mi ngi fi doon njàng ak. waxtaani diine yeeg. laytu xadra geeg. lépp gis nañ ko macha allah. mel na jekkoon nañ wallaay ndeysaan. lu jiitu barab bi noppi. kon dundal googu ne wéy rek euh, barab barab bi defuñu ko fi mu taaru nii rek ñu di ko xool dundal gi mooy jaamu fi yàlla kon nag ñu ngi leen ciy soññ bu baax a baax a baax seen bopp bu baax a baax baax ñaan yàlla itam képp ku fi jaamu yàlla yàlla na ko su borom bi nangu subhaanahu wa taala amiin ya julli yi ñu fi julli itam yàlla na ko yàlla nangu far suñu bàkkaar yëpp for suñu ñaawteef yëpp fóot xol yëpp yàlla dimbali ñu ba li sëñ Tuubaa bëggoon taalibe mel ni mu mel noonu ci barke alxuraanu karim waaw macha allah neen xol yi sedd na guy ñu ngi ndokkeelaat waa koñ bi yëpp ak waa barab bi yëpp ndokkeelaat suñu maxtaar bu baax a baax ñu ñaanal ko it bu baax a baax a baax borom bi musal ko bu baax a baax a baax. mu dem ba taxawalaat yeneen yu mel ni yu bëree bëri macha allah amiin yaa rabbi di yàlwaani di indi rek wallaahi ndeysaan <laughs> di def yu mel ni macha allah amiin yaa rabbi amiin jërëjëf waay wasalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah nangu ñaan amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin jërë ngeen jëf macha allah jërëjëf Mbacke